salaamaaleykum suñu mbokk internet yu euh, Dakar net ginnaaw bu ñu leen nuyoo kontaan bu baax a baax ci topp bi ngeen ñu topp dal leen jàmm ci les minutes de l'info ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor les minutes del l'info les minutes de l'info dañu koy ubbee ak euh, mbir mi nga xamante ni moom moo amoon Euh, ay bés yee ñu génn fa la nga xamante ni moom mooy diwaanu Diourbel procureur région bu Diourbel di wuyoo si e Mamadou Seydi Diaw euh, ci werante bu mu seexoon ak ki nga xamante ni moom mooy maître Babou mbir ma nag nii la demee ginnaaw ab procès bu seexoon euh, Serigne Seexuna Bousso ak ki nga xamante ni moom mooy Ibrahima Diouf Ibrahima Diouf maître Babou di client wam maître Babou doon ko layool ci biir procès bi ki nga xamante ni moom mooy procureur daal di laaj ki nga xamante ni moom mooy Ibrahima Diouf. mbir suuf bi naka la demee après Ibrahima Diouf daal di wax ni suuf si dañ ko xaw may benn terrain bi dañ ko koo may. ci la ko procureur daal di laajee ni ko xanaa loolu ab addiye la maître ba bu mer ba futtu nag jëmale ci procureur ni loolu du ko dégg ni ki nga xamante ni moom mooy procureur dafay euh, néewal dafay tuuti li nga xamante ni moom mooy. turu addiya ñu siy werante ñoom ñaar ba sax ay kàddu yu ñaaw daal di jub si ñoom ñaar ñu ciy sax Euh, saagante mën naa ko waxee noonu alors bi mbir ma euh, bi ñu annulé procès boobu ñu arrêté ko ki nga xamante ni moom mooy maître ba bu ànd ak murit ya nekkoon foofu ak ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon sa saal ba daal di juutali fi nga xamante ni mooy kër kër sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru ni daf koy kalaame ak procureur bi ba mu fa demee fekk ko fa waaye dafa dem ci ki nga xamante ni moom mooy daayiratul mu xaddimatul xidma ñoom la yi daal di leen wax la ko metti ak la procureur ba wax doy ko moom maître moom mu dem fi nga xamante ni moom mooy euh, fajiri rajo Walfadjri bu Touba daal di clamé ki nga xamante ni moom mooy procureur ba ba léegi nit ñi ni dafa yëkkati ay kàddu yu ñaaw jëmale ko ci yoonu murit dafa tuuti li nga xamante ni moom mooy turu addiya waaye moom nga xamante ni moom mooy Mamadou ak Diawo di procureur Diourbel Euh, si téléphone nee na mbir moomu maître Babou wax dara amu ci ab laaj la woon bu mu doon laaj ak euh, ki nga xamante ni moom mooy Ibrahima loolu dara wutewul dara yamul ak ak li nga xamante ni maître Babou mi ngi koy euh, wax di ko jëmale ci moom te nee na sax moom procureur bi ay mbàkke mbàkke daal dinañu koy woo ba mu leen leeral mbir ma digge sax digge na ni dafay porter plainte maître Babou moom procureur bu Diourbel te fii ñu toll nii takk der ya ña nga ca buntu këram ndax dañuy bañ nit ñu dem fa dañuy bañ am ay nit yu fa dem naan dañuy jéem a taal këram ak yeneen euh, yu ni mel bu ñu fa jugee dañuy dem fi nga xamante ni moom mooy euh, Espagne île Canaries euh, ca frontière ba teg nañu loxo ñetti sénégalais ak benn italien boo xamante ni dañ leen fekk ak drogue bu bare bare ci bateau bu ñu doon dawal di dugg ak moom fi nga xamante ni moom mooy Espagne jamono ji ñuy wax ak yéen ñoom ñi ngi ci loxo yoon ñi ngi ci polisu Espagne bi lañu nekk. ñu fa jugee dañu dem ci ki nga xamante ni moom mooy Zal youtubeur Zal ginnaaw mu defee vidéo moom wax ci mbiri borom ñaari tur yi ak li fi xew ak li fi xewoon ay bés yële passé moom Zal dafa jot ab message ci li nga xamante mooy compte Instagram am ñu ko ci eh, dànqaafu naan ko mu bàyyi wax yi muy wax jëmale ko ci borom ñaari tur yi mu bàyyi nit ñi def li ñu bëgg a def que que envoyé message boobu nag li gën a métti saal mooy dañ ci def drapeau Sénégal ba pare def ci euh, ñoom seen couleur yooyu di couleur arc en yi nga xamante ni moom mooy firndeel ñoom LGBT yi waaye saal dafa defaat beneen vidéo daal di répliquer daal di moom du mës a tàyyi di wax ci mbiri góor jigéen maanaam dafay continuer di ko ñaawlu euh, même bu ñu demee sax euh, en fait ba tëj li nga xamante ni moom mooy compte YouTube am du tax mu arrêté di wéyal xeex boobu nga xamante ni moom lay xeex ngir góor jigéen bañ a law fii euh, ci réew mi suñu mbokki journaliste yi ñett ci ñoom kenn ki di euh, caméraman kenn ki euh, di ab chauffeur kenn ki di ab journaliste ñoom tey ñu nga woon fële ca fa nga xamante ni moom mooy hôpital principal levée du corps foofu la kenn ki nga xamante ni war na wutali euh, Touba di Ousmane Ndiaye moom lañ koy yóbbu fi nga xamante ni moom mooy Touba Yoro Diallo war a dem fi nga xamante ni moom mooy Ziguinchor ak ki nga xamante ni moom mooy Abdoulaye Diop. war a dem fi nga xamante ni moom mooy euh, Podor di leen ñaanal suuf euh, sedd si seen kaw waaye dañu koy daaneele les minutes de l'info ak ki nga xamante ni moom mooy Eumeu Sène ginnaaw bi mu daanee Balla Gaye le 8 février 2009 daanaat ko euh, le 5 avril 2015 daal dina koy nangul revanche am ginnaaw bi mu waxee ni moom dootul bëre ak Balla Gaye Gaston fexe ci ay pexeem fexe ba daal di leen boole waaye ci kàddu Gaston ni moom kase ba na waxul ñaata la fay ki nga xamante ni moom mooy euh, Eumeu Sène waaye Bombardier yi ñu fàttali leen moom tamit Eumeu Sène daal dina koy jox revanche ay bés yi la ñu génn ba ñu dajee fële ca drapeau président euh, Macky Sall ah, en fait bi ñu fa bi ñu doon bëree fa nga xamante ni moom mooy diwaanu Kaolack foofu noonu la ñu dajee daal di dëkkantee Gaston tamit taxawal na combat boobu mu mel ne ñaari revanche la Eumeu Sène euh, jox kenn kii Euh, mi ngi ko jox Balla Gaye kenn ki mi ngi ko jox ki nga xamante ni moom mooy Bombardier ñu war ko bëree ci euh, saison deux mille 2021 2022 bële di ñëw Balla Gaye tamit ñu fàttali leen moom moom mi ngi war a bëree ki nga xamante ni moom mooy euh, Bombardier le 31 juillet bi le 2 janvier moo war a bëree ki nga xamante ni moom mooy Boy Niang mu war a bëreewaat également ki nga xamante ni moom mooy Gris Bordeaux ba jàppaguñ ko waaye bu fa jugee la war a bëreek ki nga xamante ni moom mooy euh, Eumeu Sène mu mel ni Balla Gaye ñeenti avance mi ngi ci loxoom we leen di abonné seen site d'information bii di Dakar Net dara du leen rëcc ci réew mi.